alhamdulilahi rabbil alamin képp koo xamante ni gis nga vidéo bi maa ngi lay ñaan nga partage ko au maximum pour ku si nekk mën a jot si information bii ma lay bëgg a wax bés ni ki tey xamal ne képp koo xamante ni yaa ngi biir Sénégal nga amee insuffisance rénale maanaam feebaru jalis xamal ni léegi dañ koy faj si biir Sénégal ba mu wér péng pour la première fois si histoire Sénégal ñuy jël reinu kenn di ko defal keneen koo xamante ni dafa am insuffisance rénale Manam loolu la ñu owee transplantation rénale wala greffe de rein te loolu moo ngi xew le 26 novembre 2023 bii ca hôpital militaire bi nekk Ouakam bu njëkk loi Sénégal mayul woon hôpitaux yi ngir ñuy def transplantation rénale moo waraloon képp koo xamante ni da nga amee woon fièvre dialyse maanaam insuffisance rénale moo waraloon ngay def ay dialyse def ay dialyse ba xëy génn àdduna fekkente ni da nga bëgg sàmm say rein ba nga xamante ni doo am feebaru rein wala ëllëg nit bu soxla soxlaaree nga mën ko may fexel ba di faral di def sport au moins 30 minutes par jour ba nopi aussi nga wañi sucre bi ngay lek bañu consommer sucre su bari ba nopi aussi nga metu xorom su bari ba nopi aussi nga moytu diwlin bu bari ak li nga xamanteni moy tux nga bayiko bu fekkee dang koy def ba nopi aussi kay faral di xol sa tension ba nopi di contrôler sa sucre fum toll su weesee loolu aussi nga maytu di jël garab bo xamanteni docteur bindal la ko parce que des fois nga jël garab bo xamanteni dafa nephrotoxique nga jël ko mu yak say rein ba nopi aussi ngay faral di nan ndox bu day au moins 1 litre 50 par jour kenn amul droit di jay sa rein wala aussi kenn amul droit tamit di jënd ay rein parce que lolu loi bi da koy téré